Argentine TV ak Big D la fii ci euh, commission passeport bi nga xam ni moo ñëw Argentine ki ñu jàkkarloon nag mooy Abdoulaye Bamba miin ngeen ko ci lu bari moom itam moo jiite li nga xam moom moo di commission bi comité bi nga xam ñoom ñooy organiser li nga xam ni moom mooy euh, déposement passeport yi man nga nu dellul si ci fan yi nga xam ni booba tey yéen a ngi liggéey naka ngeen tëral organisation ba tollu fi tey waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi mbokki Sénégal yëpp yi nga xam ne mooy lu ñu bokkal Amérique latine bi oh, rawatina fii ci waa Argentine ak waa Brésil di nuyu sama collègue yi nga xam ne ñoom laa bokkal liggéey bi ku mel ni Badou ak Moustahine Alpha Diallo lamin Sarr pate euh, yaakaar na ak sëñ Saw su ma limee damay juum euh, ñun ñëpp ay frère lañ ñoo bokk ndey ñoo bokk baay affaire wax dëgg yàlla metti na nag ba foo ko takkee su na ko mais ñun dañuy liggéey yàlla ak it bëgg liggéeyal suñu drapeau muy sénégalais yi kenn ku ci nekk xam na ne ñun moom organiser ñu yombul di nga dégg lu nekk mais ren ay mag ñoo xam ne ay xefe lañ judd ci dëkk bi yàgg fi ñoom ñoo taxaw fii seere nii liñ gis tey ñoom mësuñu ko gis rafetlu liggéey bi bu baax a baax wax dëgg yàlla Badou sama grand la nit ku baax la tey boo ñu fekkee fi da yaakaar ne ñoo bokk ndey ak bàyyi doo xam ku mag doo xam kuy rak lépp rek ngeen fexe lépp jaar yoon vraiment ñi ngi sant yàlla ba affaire kasi bu néew ba néew lu mat cent soixante-dix personnes cent cinquante moom la ñuy tomar pour dia mais dañuy bàyyi cinquante pour réserve cinquante yooyu lu ci ëpp dinañ ci laal vingt maa ñu laal ci trente foofu lañ toll pour Aora. ok ñàkk passeport daf ci yàgg lool ñu bari am problème bi bi ñu annoncé dana ñëw nit ñi jóge fu nekk ñëw naka ngeen def itam ba teg mbir yi ci yoon ba amul benn coow. waaw xam nga lool lépp xam nga organiser moo yor mbir loo ma doon ci àgg bi muy bi bi Moustapha dafa ubbi benn groupe ren bi comme commission bi commencé ba léegi yaakaar naa kenn gisu Moustapha fii jaaroo fi kon mbir doxal ko yaakaar naa ñi ko organisé bu ñu doxalee yoon rek lépp jaar yoon man amul mbokk amul xarit amul àndandoo amul conocido kii même chose dañoo am groupe muy benn panel ñoo waxtaan ci ba déggoo amul ki sama xarit la amul ki xam naa ko ak ki xamu ko chegada lañ xam maam chegada temporam boo lay ñëw ordre de chegada la da ngay bindu. kii topp ci kii topp ci kii topp ci ordre topp ñun mais nag premier âge koo xam ne mag moo xam ne am na 60 ans doo koo xam ne xale nga doo rang koo xam ne jigéen nga doo rang dañ lay jël noonu lañ ko doxalee amul ci benn Sénégal boo xam ne xuloo nga fi wala nga xeex fi amu fi waaw loolu mu yàlla dogal na amagu fi wax gi am na ñoo xam ne daanaka 9 heures fa la leen fekk waaw loolu yaakaar naa sax ci ndimbalu ci ndimbalu mission bi ñu ko jiite ñoom ñoo am compréhensif bu baax lool mais heure boobu seen heure dañu nekk si yàlla dogal dañuy dem ba dañu takk ay làmp dañuy liggéey huit heures ba vingt deux heures kasi police yi da nga leen sax yërëm duñu am temps de pause mais maanaam li nga xam ne moom lañ jëloon muy benn stratégie mooy benn policier day dem lekk keneen ki continuer di liggéey bu koy ñëwee keneen dem lekk nga xam ne amuñu pause duñ pause ngir bëgg a satisfaire Sénégal yi fi nekk ñi fi nekk yëpp kenn ku ne xam ne latin bii ba fi màggee kenn da ngay am problème doo mën a dugal xaalis passeport dañ ko soxla dañuy ñaan waxuma sax passeport yi ñëw gi mais gaaw ci jot buñ ko defaree ba noppi dañuy ñaan yàlla di leen ñaan ñun suñu autorité Sénégal yi nañ gaaw par passeport yi nu mu gën a gaawee yónnee ñu ko parce que dañ ko soxla tubaab yi xamuñu lu dul kayit booy dugal xaalis kayit ngay joxe booy alclair maanaam bu vacation kayit ngay joxe kon li leen di ñaan mooy nañ ko defar automatiquement ñu yónnee ñu ko ñu mën cee jot. tey la ter maanaam daañu sottal lépp wala dana am lu des. waaw loolu xam naa damay bàyyi nga waxtaan ci ak ak ak xam naa Badou incha du ñàkk moom mu am lu mu la ci leeralal parce que moom ginnaaw maa ngi moom ñoo bokk def ci liggéey bi xam naa a indi loolu ci ay leeral incha allah it miin ngeen ko muy kenn koo xam ni ci administration lépp loo xam ni daf fi ñëw. taxawaayam def ci fees lool euh, maa ngi doon laaj Abdoulaye Ba ma ma ni tey la bés bu mujj ndax manees na jàpp ni ñëpp daañu déposé waaw salaamaaleykum euh, Gora maa ngi lay ziar di nuyu sama gars sama compagnero yi laay Sarr euh, Moussahim Alpha Grand Paté ak euh, Saw lamin Sarr di ziar gars yëpp waaw am nañ yaakaar ni xente bi fi nekk nii ba ñu ñaanee li nga xam ne moom lañ war ñaan suñu kilifa yi jóge Sénégal ñu ngi leen di ñaan pour ñu dem ba 10 heures xam naa ne bu ñu mañee ba heure boobu dinañ mën a jégaar ñëpp dinañ mën a déposé incha allah rabi. li ngeen am ci ay numéro tey dafa double li ngeen doon am par jour wala. waaw euh, yaa ma gën a xam góor a sénégalais yi chaque jour tardivement dañuy ñëw moo tax euh, chaque jour dernier jour yi mooy gën a compliqué tey chiffre bi ñu am amuñu ko woon ci quatre premiers jours yi xam naa ni jégaar nañu ay deux cent et quelques deux cent vingt personnes. bon cent soixante cent soixante dix personnes nañ doon am au plus euh, lu ci gën a bari bëri dina jël ba cent cinquante wala cent soixante personnes par jour. leen mayee ba dix heures soixante dix personnes yooyu mën nañ ko fi def ñoom. waaw ñu mayee ba dix heures daal bu ñu kilifa gi liñ koy ñaan bu ñu ko mayee eh, te yàgg nañoo may nag ñu ngi koy ñaan liggéey nañu fi ay deux trois jours ba vingt deux heures. loolu yëpp ñu may ñu ko xëy na tey ci dernier jour bi ñu la koy ñaanee dinañu ko may te bu ñu ko mayee dinañ mën a terminer loolu yëpp Sénégalais yëpp dinañ mën a déposer quoi incha allah. bi ngeen accueillir Sénégalais seen dal ak seen yar tey ndax mën nga ci def benn encouragé wala itam am ngeen leen naqari ci li ngeen taxaw woon. waaw eh, Sénégalais yi nag moo am nañ comportement bu nice quoi euh, certes que eh, dina am ñenn ñoo xam ni eh, dañuy xaw a déborder mais nag ñun ñi nga xam ñooy organisateurs yi ñun ñoo leen di recadrer. parce que nit ku nekk ak façon bi muy ñëwee nit ku nekk ak jikoom mais euh, cent pour cent boo gisee quatre soixante dix pour cent yi correct na quoi sincèrement amuñu benn xaarma ak ñoom ku ci indi sa jiko tamit am nañu benn niveau boo xam ne moom la ñuy wax ak yow nga mën a tegu ci ligne directe quoi jaajëf Baye Gora ñu ngi lay ziaral di di encourager ñi nga xam ni comme grand Abba moom mi nga xam ne chaque jour day ñëw di ñu assister Père Abba moom tamit dañ koy vraiment dañ koy jox njukkal Moustapha la même chose ñëwul mais c'est-à-dire confiance bi mu am ba jox ñu responsabilité bi il fallait que tamit ñu delloo ko njukkal moom ak grand Abba grand Abba moom chaque jour il est présent démb indil nañu añ jabaram toggal nañu mu indil ñu ko yooyu yëpp ay ay ay acte la yoo xam ne da nga ko war a souligner bon ñu xam ne ñun ñëpp benn lañu amul ay acte des sénégalais nii arsa c'est-à-dire boo ñu fekkee ñuy liggéey man ak Blaye Bamba ak ñi ak groupe bi ñu àndal nga war a xam ne ñun sénégalais yi euh, réerewuñu c'est-à-dire mentalité sénégalais yi moo réeroo mais ñun suñu biir réerewuñu kenn ku nekk xam ne li ngay doxal kenn ku nekk xam nga lan ngay jariñ sénégalais yi loolu nag lañ bëgg sénégalais yi def ko seen bopp xam ni fii amul fii xaaj ak seen lépp lu ñuy def ñun ñoo koy xàccandoo dóorandoo Moustapha il est leader dañ ko koy nangul il est leader moom bi mu ñëwee bi commission bi ñëwee def ñoo woo woo ma man téléphone ni ma commission bi dina fi ñëw jour tel et di du 4 au léegi nag loolu mu woo ma en tant que responsable yëgal ma ko ma yëgal ko waa acte des sénégalais ñu jox ma les responsables ma ànd ceeg ñu war a àndal grand pâté Alpha Diallo. ak Lamine Sarr le secrétaire général ñu ñëw liggéey ko ak euh, ak sama gaay yi nii mu rafet trop ñu ñaan yàlla ñu termine ko ci alhamdulilahi rabil alamin commencé nañ ko nag ci lu rafet dañuy ñaan yàlla ñu termine ko ci alhamdulilahi rabil alamin yàlla dimbalu ñu ba li ñuy mbëmbët mun a sotti quoi jaajëf di leen ziar yéen ñëpp di leen bëggee di remercier suñu policiers yi jógee Sénégal et di remercier yéen Touba TV big di in the house waaw di xam ni yéen ñu ak yéen la quoi ñu ak yéen ñoo far jaajëf